qui gën a marquant cette année Nous conseil économique social et Nous donc de ak jafe-jafe yi askan bi dund ku ñëw pour jàppale ko ñu jiitu réew mi pour Macky Sall tey jii moom ñuy wax affaire éthique et morale est-ce que tey jii en matière de politique tey ñu ñuy wax affaire éthique et morale dem ba nit tey kàddu yu démb waroo ñu tey imaam tey ca waaw xam nga loolu moom dinaa sawar a wax ci parce que njaga réew mi damay wax ni l'islam indiwu fi kàddu fi la ko fekk kaddu l'islam fi lako fek parce que lu jitu l'islam di dugg ci rew mi finekon. yi ñoo fi nekkoon ceddo yi ño nekkon ci rew mi te ceddo yoyu dañ dan khas li wolof dan wax nan khas buñ khasana wax manam buñuy dé sax dañ sen wax joju du dañ waaw arab yi dañuy wax ni ma khala gor ca wax ja boo xoolee suñ réew mi am na dëkk bu tudd Gore am na fii ci Ndakaaru am na dëkk bu tudd Ngor baat yooyu liñ ci déggee mooy sunu réew dafa maanaam islam bi mu fi dugg tamit dafa am lu mu fi fekk maanaam li ma bëgg a wax mooy li baax lépp l'islam indiwu ko fi parce que l'islam bi mu ñëwee li baax ci ci jaahiliya comme ni ko yonent bi waxee xiyaarukum fil jaahiliya xiyaarukum fil islam li baaxoon ci ci ceddo yi daf koo jël boole kook lim indi moom te lislaam bu la ci kenn nax sëñ Babacar Si bi ñu ko laajee ne ko lan mooy diine dañu diine mooy ngor nit bu gorewul rek amul diine nit bu gorewul amul diine te gor nag gor dëgg mooy gor gor du tiit ba fen loolu la sëñ Babacar daan wax waaye gor du ñàkk ba ñànki yooyu ay baat la yoo xam ne diine ji fi la ko fekk moo tax kon buñu gisé ku melni Idrissa sek ay waxi dembam ñun ñep xamoon nañ ko conseil économique social bi ñu ko jox dañu won nañ ko supprimer parce que yaqum khalis la mu ne décret duma fal yoy ay waxam la kenn waxalu ko ko mu ne Macky Sall ay kàddoom fiabulul yoy wax Idrissa sek la mu taxaw bi bi bi ñu falee Macky sàll mu taxaw ni moom reconnaîtreul résultat yi yii dafa baax ñu fàttali ko Sénégalais yi parce que Sénégal malheureusement ñenn ñi dañuy parparloo ñenn ñi dañuy gaaw a fàtte ki gaaw fàtte moom day baax nga fàttali ko ko fàttali ko pour mu fàttaliku xam ni waxuñu pour di singili kenn wala di songu kenn ñu dépassé nañ loolu maanaam jëmmi Idriss Seck ji intéressé wuñu mais ay jëfam nag daf ñuy intéressé ndax moom moom ni dafa bëgg a jiite suñu réew kon wax yooyu yëpp bu ñu ko pose dañuy gis ni waxi démbam ak wax ak ak jëfi tayam dafa wuute am na laaya ju ñuy wax ci biir alquran yaa ayyuha allazina amanu li ma taquluuna maa laa tafaluuna aaya boobu ku ko mokkal rek ci gémmiñu Idrissa Seck nga ko mokkale Idrissa Seck ay kàddoom daf ci dañ ci daan jàng constant hmm? éthique dañ ko daan jàng ci ay kàddoom mais ay jëfam tey dafa waroo maanaam ay waxam dafa waroog limu ay jëfam loolu nag du moom kese boo xoolee classe politique bi yëpp mën nañ ni ñi fi jiitu jiitu woon boo ci génnee ku mel ni Cheikh Anta Diop Mamadou Dia hmm. bariwul ñoo xam ni éthique ak moral ñoroon na leen. dafa loolu. mooy àdduna àdduna bis bu ñu fi jëlee éthique ak moral àdduna bi jeex na parce que yonent bi sallallahu walla wasallam diine yëpp mën naa la ko al addiyaan as samawiya diine yi fi mus a jaar yëpp benn combat rek lañ amoon mooy éthique lañ doon défendre morale lañ doon défendre institution yi nag man naa wuute ni muy doxe charia bi mën naa wuute waaye ñoom ñëpp kenn nug yàlla gi rek lañ doon saxal mooy te kennug yàlla googu boo ko definiire nit pour nga pour nga pour nga gëm kenn yalla il faut nga am éthique am moral xam nga Kéba mbay dafa wax lu am solo ci université yalla nako yalla yeureum bi muy def discours am boobu mu ni réew wul ay ingénieur rewmi mi wul ay avocat rewmi mi wul dara manqué wul ay docteur waaye rewmi problème éthique la am te Idriss Seck fim tollu ci pénc mi motax jëfëm da fay am jeexital bu baax ci pénc mi parce que bu ñu demee élection ay sénégalais yu bari am yaakaar ci yow ñëw topp ci sa ginnaaw doy loola jël seen kàddu jox la ko nga dem di négocier ji te ba ngay négocier ñooña nga àndaloon yëguñu ko rek loolu éthique nangu ko moom nee na doon na discuter ak Macky sàll quinze mois avant euh, kii bi ni ñu koy waxee. Covid bi. yaakaar man seigne sëñ Abdou Lahad Mbacké radiyallahu anhu yalla nañ ko yalla fayal xam nga seigne Abdou damay wax ni ay waxam dañ ko warona traduire ci langue yëpp pour ma pour nit ñi diko ko dégg parce que dundum yëpp jàngale la mo daan wax naan as gor waxi dembam ak waxi tayam buñ ko méngalee mu wuté rek jappal ni du gor parce que li nit ñi tuddé gor ay sante loolu du gor gor moy ko xamni bo waxé dang ci dé Lat korok koroog bi muy génn di dajeeg tubaab bi am na ñu wax ni am na ay kilifa diine yu ko seetal ni ah Lat Joor yow de sa dajeeg tubaab bi baaxul buñ sañoon nga dellu ginnaaw mu ni leen dellu weesu parce que joxe naa sama kàddu ba noppi kon réew mi suñ penc mi waxuma la diine amon suñ cedd yu fi nekkoon sax dañoo amoon kàddu li nga laaj nag ci lay peuple bi ban responsabilité lañ ci am man dama est-ce que du peuple bi lii lañ man dama gëm ni lu Sénégal lii la ñu mérité. waaw ah, parce que loolu alquran moo ko wax du samay wax yàlla moo wax ci alquran ni inna allaha laa yughayyiru maa bi qawmin xatta yughayyiru maa bi am anfusihim loolu mu ci kaamil du samay wax yàlla moo wax ci alquran ni allah ne modifie point le d'un peuple tant que les individus qui la composent ne modifient pas ce qui est en amna ben wax waxkatu arab bu mak bu wax abul ash ashabi bok na ci ñi libéré tunisie kat la danaa wax ne isa shabu yawman arada al haya fala budda an yastajiba al qadar mu ni peuple bu bëgg mom sa bop il faut nga fekk dogal yi manam li dal sénégalais yi tay ñi nga xamni ñi ci ëpp responsabilité moy le peuple sénégalais parce que peuple bi mo ñom ñoo nangu ñu nax leen xam nga tay li am ni senegal exemple lu tollu juroomi téméré nit faatu kenn waxu ci ba internet bi ci bopam ñoo mujj di def day national loolu ñimi woko amerique ko woko France kon ça veut dire lima la wax ni le bukki bu do bu dabé ponkal ca doxine wala loolu moy deug peuple bi ñoo wara sétat sen bop xam liñ bëgg lan la ñu jëm ci te bu fi kenn wax yalla yalla li ne ni yalla teguñu ko non yalla tamit yalla ja nek France nek amerique mo nek barni gi mo nek fi ñuy defee émission bi. moo ne non yalla ko xam yalla sax do ko bolé ci affaire yalla mom yalla lu né seetaan nako yalla mi seetaan bañ jël yonentou bi dam bañam ci xaré yalla lo man du lako ko defal loolu la ñu wax sénégalais yi parce que Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu bu doon yalla yalla rek du génn réew mi mais da bu doon ñaan rek toog di ñaan naan yàlla yàlla tey jii mais dafa dafa daj ay coona ak ay ñu teg ko ay fitna yu metti mu accepté ko dund ko moo tax tey turam àgg fi mu àgg yonent bi waxi nopp Seydi Hadji Malick waxi nopp kon loolu nañ bàyyi peuple bi ñuy nax di leen wax yàlla li ñu dal nii yàlla yoonam nekku ci ñun ñoo ci ëpp responsabilité ñun duñu woo kenn mu jëm ci violence parce que violence réew mi xaju ci mais nag ñu ngi woo ñëpp ci ñu responsable responsable jarul xuloo jarul xeex ku ne yaa moom sa carte ku ne war ngaa am sa carte te nit ku ne yàlla jox na la xel parce que nit bu xel dañee ci moom dara desatul ci moom bu bu bisu sànni ba jotee nga seet koo xam ni donte amuti nit da nga jàpp ni waxkatu dëgg la nga jox ko sa carte mais li dal sénégalais yi nii man dama jàpp ni sénégalais yi kenn ëpp leen ci responsabilité waaw